asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, noo ngi fii ci barab bu tedd bi di jumaa ji ànd ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool ta ànd ko wér waaye feggoo ak commission bi nga xam ne ñooy séntu lépp lu jëm ci wàllu weer wi te commission boobu ka ne ca bopp ba di sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso waaye mu fegoo ci ak sëriñ Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi waaye ñu ànd ak waa daayira Muxadamatul Xidma ci njiitu seriñ Afiye Bousso ñu di ko tàmbalee nag ci weeru tamxarit ba weeru tamxarit del si fukki weer yi ak ñaar saa amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent danañ ñëw fii ci jumaa ji wax ci rajo jumaa ji ne sëriñ bi nee na nañ maase séntu weer wi ci ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppoo danañ jokkoo ak suñu correspondant yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi waaye ñu jiital ci kooku Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdoul Khoudous nekk ci Daarul Mooti tey jokkoo ak suñu bokk yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu Tiwaawan ak li ko wër lépp e, bi weeru koor amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey jii di gaawu waat nañ toog ci buntu sowu bi nañ ko daan defee sëriñ Abdou Diop wax ci rajo bi ne sëriñ bi ne nañ maase séntu weer wi dañuy def nag buñ ko defee ba waxtu wi jot danañ waat ak kër sëriñ bi ndigal lum ñu jox incha allahu rabbi mooy li ñuy jottali kon ginnaaw bu ñu séntoo ba nëga ni ñu bàyyee kàddu gi sëriñ Abdou Diop ba xam lan ndigal moo bàyyi ci kër sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ko sëriñ Fallou Garas waxee rek mooy lin baaxoo def muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yéen dana dikk ci jumaa ji ci ndigalal sëñ bi yéen fi nañu séentu weer yi te ku ci xam lu wér nga nga ñëw yëgle ko bu ñu defee noonu ba noppi ne dañuy génn génn ci soow bi ñun commission bi di xool ànd ak euh, bokki jullit yi bokki talib yi yëpp di xool ak ci taatan xibaar yi ci gox yi bi ñu ko defee ba waxtu yi jot nag yàlla dogal na taatan nañ xibaar yu baree bari ci gox yi ak ci dëkk yi yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax ci biir Touba la ñu wax ne gis nañ weer wi kon nag ñuy di bu ñu defee noonu ni ko suñu Fallou Galass waxee dañuy daal di jokkoo kër sëñ ba moo xam ni yëf yi demee bi mu ko xamee ba noppi daal nay joxe ndigal ci kon nañ nañ nañ yëgle ne weer yu feeñ na kon suba mooy mooy koor kore gi di di benn fan korite kon na ñëpp xam ne ne weer yu feeñ na tey jii ci gaaw bi suba ci dibéer ji mooy benn fan korite bi kon na ko ñëpp xam. muuri koor yi waaw koor yi yi na ko ñëpp xam. muuri koor yi. waaw kon nag nu gën a soññee bu baax a baax ci muuri koor yi xam ne léegi bu ñu delloo ci kër yi kër ga rek mën nañ ko daal tàmbali génne joxe ndax ku jekkee jekki bañ julli ba julli ji ba noppi nga door koy joxe nee nañ sarax nga am yonent bi nee sarax nga am waaye amoo léegi yoolu muuru koor kon nag nañ ci daal di góorgóorlu léegi bala noo julli ji bala ñoo xëy di julli ji rek noonu dundee ko tey fàttali ngi dëggal sëñ bi la xam naa lool sax moom euh, waa sunu sang si danañ ko wax muy usbu tarxe muy nu gën a sàmmonteeg ndigali sëñ bi rek ci jigéen ñi gone yi moom di toog ca kër ga kër ga ñu xam ne ñoom jéggal nañu ñëw loolu danañ ko li tax ñu di ko xam ne ñoom danañ ko waxaat sax waaye nag fedd li dañoo bëgg ñu xam ne fedd lu fedd liku la rek lu fedd liku la xam ne eh, daal nañu toog ca kër ga te it yaatal jotaay yi ci toogaay toogaay ci jumaa ji ndax ñëpp xam ne ne ci jumaa ji la jullee kon nu yaatal yaatal toogaay yi te xam ne jumaa ji li ko war yaatu na ku dikk fekk jumaa ji eh, fees ñi ci buntu jumaa ji buñ ne la fees na da ngay génn seet ci jotaay te bañ te jotaay yi wër jumaa ji it nu bañ cee sësaloo di di def ni ko ni ñuy def ci biir jumaa ji wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi sant yàlla bu baax di jullit yonente bi alayhi salaatu wasalaam di jaajëfal Serigne Touba di ndokkeel bokki jullit yëpp ci weer wu tedd wi nga xam ne mooy weeru koor wi nga xam ne moom lañ doon tàggool tey jii waaye di leen ndokkeel it ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñuy jublu muy weeru korite di fàttali bokki jullit yëpp ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi sëriñ bi wax na ne jullit korite gi ren ñi ngi koy amale fii ci biir jumaay Tuubaa ji ci biir jumaa ji lañ koy amale ñëpp xam nañ ne am na jullikaay buñ daan jullee ayit yi muy kori ak tabaski waaye contexte bii ñu toll ak barab booba ni mu ñàkk yaatoo moo tax ni ñuy jullee xajul foofa sëriñ bi indi ko ci biir jumaa ji ngir ngànt li nga xam ne moo am kon suba na ñëpp bàyyi xel ne ci biir jumaa ji la ñuy jullee korite gi incha allahu taala ci 10 heures ci suba ñuy fàttali itam yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon kuy ñëw mu sàmmonteeg moom ba ca njëkk mooy kuy ñëw nanga nga takk masque wala nga yor kaala goo xam ne dana mën a muur sa gimiñ ak sa bakkan soo agsee ba ci buntu jumaa ji itam na nga raxasu mbaa nga diwoo sel yi nga xam ni moom la ñuy joxe loo ci def baax na boo duggee ci biir jumaa ji itam ni ko sëriñ Abdou Diop waxee léegi euh, ñu soreele taxawaay yi ci sàppe am na ay barab yu ñu màndargaal yu ñu war a taxaw yoo xam ne kenn waru caa taxaw ku agsi gis màndarga bi ci suuf rek muy fi ñu bind laagi na nga xam ne foofu laa googu kenn du fi taxaw fi amul dara foofu la ñuy taxaw bu jumaa ji feesee itam ki nekk ci bunt bi bu la waxee ne fees na na nga jàppalanteeg ñoom génn xool fu yaatu nga jullee fa ndax ku ne xam ne ne ci bitti lañu ko baaxoo woon a jullee waaye dafa amoon mbaar moo xam ne fa la ñu daan dugal kilifa yi mbaaram ma nag dafa xat mënula sàmmoonte ak li nga xam ne noonu la ñu war a sàmmonte niñ ko mënee ci biir jumaa ji mëneewuñ ko foofa loola lañ jàpp ne moo tax sëriñ bi joxe ndigalul ñu indi ko ci jumaa ji loolu nag lañ luñ ñun ndigal rek lañuy ñuy jafe sëriñ bi moo joxe ndigalul ne nañ ko indi ci biir nañ ko indi ci biir la ca des it mooy bu ñu jullee ba noppi ñëpp maase toog déglu xutba bi ba sëriñ bi waxtaan ba noppi ba yeewee ñu génn ndànk ndànk bañ a buuxante ci bunt yi toppante ndànk génn dem loolu mooy ndigal yi nga xam ni moom la sëriñ bi dégle ku ñëw itam te man ko mu àndaale ab sajaada ba boppam jigéen ñi ak gone itam ni ko sëriñ Abdou Diop waxee léegi sëriñ bi ñaan na ñu toog ci kër yi ñoom ba beneen jamono ba jamono soppiku ndax ku ne xam ne ne jataay bi yaatootul na mu yaatoo woon ngir ñi fi daan ne ñi fi nekk dañ koo limité wax naa leen léegi ne leen barab bi toogukaay yi da ngay gis fuñ bind laa foofu kenn du fa toog fi yaat fi ñu bindu dara rek fa la ñuy toog te barab yooyu yëpp ay barab la yoo xam ne nit ay nit mënoon nañ caa wala ñaari mënoon nañ caa toog barab nag bu fekkante ne da def lu toll ci fukk tey muy def lu toll ci ñett ku ne xam na ne mbooloo mépp du ko attanandoo ñu seet nag ñi nga xam ne seenu toog moo gën a woyof ñu toog loo leen muy ndaw ñi gone yi tu tànk yi ak jigéen ñi ba beneen yoon incha allah bu yaatu amee ñu dellu ca dañ daan defi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dix heures la ñuy woo ñëpp ñu ñëw ci jullikaay bi incha allah bu soobee yàlla fas nañ ko yéene dundale noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane li sëriñ Abdou Diop wax léegi rek di fàttali itam muuri koor yi ñu génne ko ku ku dégg suñu kàddu yi rek ndax xam ne mën na koo génne la gën la nga xam ne moom lañ ca taamu mooy ñi ñu koy jox jot ci bala ñoo julli ji ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ku ko joxe gannaaw julli ab sarax la am waaye muurum koor moom waxtu wu ñu ko war a joxe mooy lu jiitu julli kon nag ñi ngi soññi sunu bopp di soññi bokki julli yëpp di soññi bokki taalibe yëpp ñu tënku ci ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.